ñu ngi lay ñaan nga abonné nii rek nga koy defee mooy noonu ngay seen noonu أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تلاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوفاة kon téere bi nga njëkk dugal ca kaw mi ngi tudd tasawudu subbaan kon mom la jëkke leral mu tambalé ci bismillah ma ngi tuddu ma ngi tambalé ci turu ar arrahmaani yalla mi ajiram bolem mi def yi ci àddina arrahimi yalla mi ajiram mi def mu sopp ci àllaaxira dafa tambalé téré bi bismillahir rahmanir rahim ndax yunus bi sallallahu alaihi wa mo ne mbir yi ngeen ni def te bëgg suñu borom def te barke na ngeen koy tàmbalee ci turu yàlla bismillahi rahmaani rahim ndax mépp mbir mu am solo buñ ko tàmbalee wut bismillahi rahmaani rahim day ñàkk barke te it gis nga ne alquran dafa tàmbalee bismillahi rahmaani rahim te di téereb suñu borom bi gën ci téere yi ñu di ko ca roy li firi nag mooy lii may def muy téere bii may taalif maa ngi koy tàmbalee ci turu yàlla yalla momi nga xamne ne mboolem mbindeef ci aduna day na yaram moy arrahman kuko gem ak kuko gemut kuko beug ak kuko beugul kuko top ak kuko topul ñepp la sunu borom boole yaram fi ci aduna arrahim nak mom moy ña nga dañ ko gemonté top ko rek ñom lay yaram bu alakhirah nañ ci yalla boole wa salla yal na doolee teral allahu yàlla taala kawe na ala sayidina ci sunu sang muhammadin te mooy muhammad wasallama tamit doolig musal tasliman ak musal gannaaw ba mu tàmbali ci tur yàlla nag mu julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama ne yàlla dooli xéewal ci moom moom moom yi nga xam ne mooy sunu sang te turam mooy muhammad mubaarakul ibtidaay lii lu ñu barkeel ab tàmbali kaay la maymunul intihaay te lu ñu barkeel it ab yamukaay kaay la muy ak mujj nee téere bi daal fi mu tàmbalee ba fam yam lépp lañu barkeel lépp barke la aw naka ñu sàkku sa ndimbal yaa mu'inu yow aji dimbale ji wa bika te ci yow dong it na la lañuy sàkk ndimbal nee na ñi ngi sàkku sa ndimbal yow sunu borom subhanahu wa taala te ci yow rekk lañuy ñuy sàkku ndimbal xam nga loolu waxoon na ko ca الجوهر النفيس نيون وكم بربك المعين ذا استعان وإن بغيره استعنت لا تعان booy sàkku ndimbal na nga sàkkoo ndimbal ci yàlla ndax képp koo sàkku ndimbal ci moom ku dul yàlla boo fi teggee yàlla daal wuti kaneen kenn du la dimbali yaqulu dana wax ajasul baraaya gën kaa aajowoo mbindeef yi ki gën a aajowoo ci mbindeef yi almuftaxir kay aji aajowoo bu la neexee it mu nga wuutale ko ne ajazul barayaa ci gën a ki gën a lott ci mbindeef yi almuftaxir kay kay aji aajowoo ila ilahi jëm ci boroomam alxani kay aji woomal almuqtadir kay aji am kattan muhammadun te mooy muhammad ibnu cheikhihi kay doomi sëriñam muhammadin te mooy muhammad wuqiya yàlla fegaleef ne yàlla yàlla na fegaleef ko kulla nakat yépp tiis ni ci ñaari kër yi muy àddina ak alaxira nee na wax kat moo gën a lottu ci mbindeef yi gën ci ñàkk kattan gën ci ñàkk pexe gën cee aajowoo boroomam loolu da koy wax ngiruk toroxlu boroomam boobu yi nga xam ne moo mu maanaa alxani la xani mooy ku woomal sunu borom euh, dafa bokk ci ay turam alxani denga ghaniyun hamid lolu loolu na lu ko alquran di indi <clears throat> sunu borom ku doylu la ku yor lu dul jeex waye al muqtadir la ku am katan la mhm, nee na wax nak turam deug deug moy muhammad mhm, nga xam ne moy doomi sëriñam moy doomi eh, serignam <clears throat> moy mooy mm, suñ Mamour ad salim moko jangal mm. te turam deug deug yit moy muhammad muhammad ibn muhammad la dal kon euh na yàlla fegal ko nak wépp tiis ci aduna ak alaxira hamdan ma ngi cant ak ak cant li man ñeel yàlla ma nga xam ne xad man na xewale na bi tawhid ci tawhid wal fiq ak fiqh wa tasawuf ak tasawuf al mujid ja aji tedd waa waa nga seetlu ne nag boo nee al majid mooy ja aji tedd boo nee al mujid ja aji teddal nee na kon maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moom moo ñu xéewale tawxiid xéewale ñu it xam-xam ba nga xam ne mooy jàngale nuñ koy jaamoo muy fiq waaye it xéewale ñu xam-xamu tasawuf yàlla mi ñu xéewale loolu kat ñu ngi koy sant musalliyan mbir mu aji doole teral alal lasi ca ka nga xam ne ataana dikk nañu al islaama islaam wal is wal al imaana imaan ak islaam wal ihsaan ak ihsaan nee na it di julli it ci ki nga xam ne moo ñu indil imaan muy gëm yàlla indil ñu islaam muy jëfe ndigal bàyyi tere waaye indil ñu it muy jëfe ndigal yooyu ak bàyyi tere yoy ak gëm gog nga rafetal ko te yàlla rek tax te koku ñu indi loolu yi sayidina mooy sunu sang muhammadin te moy muhammad wal ali ak ñun ña wa sahbi ak sahabaam fi al hal ci li tew wal ma ali ak delu way ba al hal wal ma al mo buñ ko waxé moy adna ak al alaaxira rek moy fi ak fañ jëm neen nag ki ñu indil loolu mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallama Mm, turam dëgg mooy Muhammad yàlla yàlla dolli salaatu wasalaam ci moom ak waa këram ña ak mboolem ay saxaabaam haza yëgal ne wa atul bi dinaa sàkku minal man naa ni tukkee ci yàlla mi aji xéewale bi def xéewalaa kon nazman aw way bihi wow nekk na ci way sahaadatu subbaan te xek waxambaane yi mm-hmm. yëgal ne nag lii sama yitte mooy haza dañ koy wax ngir buñ dee wax ba su mu jàgg ñu tuxoo ñu tuxoo ca lañ doon wax war a jiblu ci janeen wax ñu indi baatu haza waa arab yi dañuy def loolu wala ñu indi da nga dégg ñu naan amma ba'du waaw gannaaw ba ñu defee lañ jiital ba pare def amma ba'du wala haza mhm. mu ne haza yëgal ne wa atlub dinaa sàkku minal mën naa ne tukki ci yàlla mi mi def xéewalaa kon nasman aw way bihi wow nekk na ci way wi sonaadatu subbaan texe ko waxambaane yi nee na kon maa ngi sakk sàkku ci yàlla mi nga xam ne moo dib xéewalaa kon way woo xam ne ah dana maanaa texe goo xambaane yi dana ci nekk képp ku ko jàng rek sunu borom subhanahu wa taala dana la may ak texe xam nga dafa defoon tasawudu sixaar muy ndaw ñi mu def nag tasawudu subbaan muy waxambaane yi nazman aw way la murattaban wudi wuñ toftale ala abwaabi ala abwaabin ci ay buntu salaasatin yu di ñett tuf di yooyu danañu yeggale ila sawaabi jëm ci ak njub mhm. nee na way la woo xam ni nag day toftaloo ci ñetti buntu mhm. mooy imaan islaam ihsaan bi mu doon junj rek ci lay toftaloo waaw te nee na képp koo xam ne jàng ko it suñu borom mën na laa defal ak njub danañu lay yeggale ci ak njub ñoom ñetti bunt yooyu sa maytuxoo tudde naa ko nag tasawudu subbaan yóbbalub waxambaane yi ila tibaaxil maliki jëm ci topp buur bi ak dayyaan kadik fayaakoon mhm. noonu laa ko tuddee tasawudu ila tibaaxil maliki dayyaan téere bi noonu la tudd mhm. ngi lay ñaan nga abonné nii rek nga koy defee mooy noonu ngay seen noonu